def développement conclusion maanaam laytaay yaatal tëj laytaay bi wax na li tax ak li ñu def ba yegg si fii cuun li tax ma laaj la sànq lan la président wax ci bi muy wax ci DPG bi dafa mm-hmm. baaxoon tamit pour ñu fàttaliku ko ensemble dafa wax ne mm-hmm. maanaam abdu Mbow mi président groupe parlementaire dès demain may déposer motion de censure mm-hmm. ñu jëm ci saboté nga xam ne lii ci liñ jëm mooy ci saboté mais loi moo ko may aussi Saa Wolof que damaa wax le contraire. ah non non mais xam boo ne saboté dafa mel ni que dafa dafa dafa violer laal loi quelque part. saboté régime bi laa wax waxuma ne dafa saboté loi. dégg nga su may wax danga naan taj ah non non mais wala nga jël garaaw. allez allez waxal. da ngay mën a tëj sa làmmiñ rek wax dëgg yàlla sinon ma bàyyi man léegi xoolal ci beneen kii laa nekk. waaw ah, non saa waxal rek na si lu bëri nag. jox ko wax. déedéet de. kon tëjal sa gémmiñ. waaw waxal rek loolu bi mu ko defee. ba mm. mu ñu jóg a saboté volonté pour saboter am na ñu bëgg a jàpp date boobu président am loo xam ne su ko tegee te loi bi may ko ko la ñee bëgg du am te loolu ci stratégie ci période de guerre walla ci yenn lu ñu nangu la ak ci période par exemple loo xam ne dafa mën a nërmeel doxalin. cas bi ma ciy indi mooy parce que yaa wax léegi lu tax ngeen wax lu ngeen lu def euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Mamadu ca sulxul xudaybiya bi mu waxee ne dañuy aji ñu dem mbir mi soppi ko am contrainte comme tey ni mu mënee am. dafa am contrainte naturelle et mooy lu ñu tabax boo bàyyi ma développé da nga comprendre. moom a. waaw ci nit ñi la jógee ay adversaire oh, comme cuun xam nga man na yaakaar naa bi ñuy wax dama ne tekk parce que damaa bëgg su ma wax ñu déglu ma. wax dëgg yàlla am. respecté naa la waaw waaw non. waaw débat la xam nga. mais débat la mais bi muy débattre. loo xam ne du kii mais am na droit aussi muy xamee ne kii naa te daaneelu ma. Ah, moom am lu muy lu muy. est-ce que du jël kàddu gi kon. ah déedéet wax na ba pare yaa jël kàddu gi. Fatou leen. ah non non c'est que ma bañu ma ku ma bañu ma xam nga Bamba Bamba non il faut il faut ñu arrêté dara. teel ko wax fii il faut ñu ta arrêté dara teel ko wax fii. Bamba ni ngay daggee waxuma sax tuun ni ma daggee. yow ni ngay daggee dafa soof. léegi kon ni ngay daggee nit moo soof. non non non non question mais mais bàyyi nit ki mu wax ni muy wax. ñun bu fekkee ne am na oh, lu mu bëgg a rebondir après moom dina dina ci ñëwaat moom ci dugg ñun ñaar ñooy ñooy wax lii génn ci non non sa làmmiñ wi ngay tëj boo ma taggoon comme ça ni man ma pare laaj la maa ngi wax ak kii hmm. wax na ma may ñëw di ko ci di ko développé li tax nangam problème amul nga dugal ci sa làmmiñ wi comme ça débat bi nangam <laughs> non non il faut arrêter tamit bàyyi li ngay def ma amut problème. te ajuma la non non ajuma la mais amut problème gis nga mën nañu daggante mën mën nga ruubee. mais dafa am dafa am non dafa am temps. non yàlla a ñëw damay jaar nii jafe lu ma war a dox lu leer laa lay wax voilà bañu ma tuun def li muy def mais bàyyil man maa ngi koy répondre d'accord léegi ñëw ne ko yeggale nga dugal ci salaam mi ku la ci dugal plateau bi ngay waxal tamit. sax tamit tuuti tuuti peut-être Bamba bu amee question. ci biir da koy da koy posé après nga continuer d'accord. xam nga léegi Bamba tekk di leen déglu religieusement. Mm-hmm. dëgg bëgg li may wax jàll. Mm-hmm. c'est vrai que am naa droit boobu quand même. waaye waxoon bu ma kiiyee. Mm-hmm. may même may naa cuun loolu am problème. cuun dama ne la dafa am hmm. ci yonent yàlla Mamadu hmm. bi nga xamee ne war na dugg màkka hmm. loolu la waxoon lu mu àndal ay saxaabaam bien ñuy dugg ci ay adversaire am am neneen lu mu mën a doxalee mu gis ne gàllankoor bu baax mën naa am gis nga ba mu leen ko waxee dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg dañ ne tàcc ay dut di am soxna su baax di jigéen moo ne ko ñii yow rek lañ lañ lañ lañ bëgg. Mm-hmm. yow rek lañu gëm gëmu nangul maanaam yow su mil sax euh, kii wu yërey armal rek. Mm-hmm. wane ginnaaw dañ la topp mu dog koo def kon kaa bi yàgg naa posé même ci lislaam ci côté politique. Mm-hmm. mooy wax lislaam nag mooy loolu politique la. Mhm. muy parti boobu da ngay gis ne parti politique la dafa am loo bëgg am loo xam ne boo ko defee sûrement dana am ñu mu déranger comme ku mel ni cuun wala nangam nangam mais lan mooy jubluwaay bi mhm. dafa am lu la sa ay noon tegal comme dëgg sërëx mhm. jàpp seen bis boo ko jàppul ñoom ñu jàpp seen bis bu la mën a lool te yow yàlla dogal na la yàlla dogal na cëral la ba bi nga koy wax mu am solo muy mu ne euh, lii nga xam ne maanaam moom la ma euh, droit may mu ne en vertu des pouvoirs qui me sont conférés l'article ban article 84. 87 87. je je dessous l'Assemblée nationale parce que yàlla moo ko may loolu. doole boobu. may doole boobu. su fekkoon ne demewut noonu. Mm-hmm. tey ñee ñoo fay nekk di saboté te am na yu fi jaar mooy li may wax ne introduction bi président introduire teg dafa am loo xam ne euh, deuxième trimestre ci at mi ngay dugg obligation la ci ensemble ñu def ko muy débat d'orientation budgétaire débat d'orientation budgétaire yaakaar naa article cinquante six ci loi organique moom mu ko tënk mu tënk député yépp ñoom ñu jalgati ko biñ ko jalgatee indi seen ay lay. loolu lu ko waral. li ñu layee nee nañ premier ministre daf leen a ñàkkal fayda te alors ñoom li ñu ne premier ministre daf leen ñàkkal fayda mujj nañoo nangu ne ñoom ñoo ko def kon ñoo ñàkkal seen bopp fayda ndax ñoom ñoo dem def foo jalgati. doxalin ak tëralwin wi nga xam ne moo leen tënk premier ministre ne leen jubbanti leen wala du ma ñëw ñu ñëw premier ministre même bu leen tooñoon tooñu leen de pourtant daf leen a fàttali seen i wareef. du ma ñëw wala ma dem defee ko ci bërëb. voilà bërëb bu boo xam. populaire waaw jury populaire foofu mooy ëpp solo voilà voilà voilà voilà léegi léegi léegi léegi léegi ci foofu léegi ci foofu ci foofu am naa sa tontu am naa sa tontu ëpp solo gi weesuwut ñun ñii dem ñëpp yow wóor na leen foofu bari na ay député yoo xam ne yow xeeb nga leen donte ne ñoom ñoo ñu représenté ndax tool dafay ñuul mooy ñag ba mooy ay ruubekat gis nañ ensemble bi ni mu mel tey jury populaire boo teg tey bu waxee loolu ci côté débat ngay wax naan côté ëpp solo ak côté niveau bu yéeg muy boo jàkkaarloo ak ay jury populaire wala ay universitaire ay journalistes yu mel ni yéen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne au moins xam-xam bi dana fa nekk. mu doon crème des crèmes. te loolu la ñu war a def ci ensemble bi loolu mooy wax ci. loolu mooy jubluwaay bi. parce que ki mën a nekk foo andi ko mais kooku même bu dee. Euh, légal na it légiti légitimité am dañ koy laam-laame parce que ñu ko yónni xeeb nañ ko parce que bu wegoon boppam fonk boppam du fa def jalgati ba kooku naan ko soo su ngeen li ngeen jalgati bu ngeen ko defaraatu ñoom ñu demal seen bopp yow li nga doon wax waxi ko doon na dandu su fekkoon ne ensemble nee na wane nañ ne jalgati wuñ waaye ñoom ñoo ko nangul seen bopp kës laay li foofu la nag assemblée moom bu ñu taxoon bu ñu taxawoon jóg ni kii dinañ ko tas parce que déjà premier ministre yàlla leen. waaw léegi xam nga man. xam nga bu ñuy wax. da ngaa jàpp ni par A par A ou B rek ba ko doon tas quoi voilà léegi lu tax lu tax ñëpp d'accord. ni ñu ko defee aussi manière bi sax. voilà léegi manière bi man ci léegi manière bi ci laay ñëw. manière bi ci laay ñëw. waaw non léegi après boo jëlee parole. boo boo jëlee parole. après nga nga jël ko mais mën nga maa dagg mais mënoo développer quand sama développement quand voilà voilà ci foofu manière bi nga xam ne dañ ko fa def hmm. defee gis nga nit euh, soo nekkee tey su ñuy wax légitime défense dafa am lu tax légitime defence tey bu la nit bettoon tey nga tiit jékki-jékki rek dóor ko fii bi ngay gestu amoo intention dóor ko fii. maanaam sa réaction. sa réaction hmm. loolu mën naa tax. Hmm. mais bu ñu gisee ne kii dafa jóg pour faagaagal la. doo ko fa te moment bi mu lay faagaagal yor nga arme nga dóor ko ci bopp bi mën nañu ne nangam ak nangam mais bu dee nit ki dafa jóg na le di dem pour faagaagal la nga jël yat assommé ko pour du yegg fa muy jëm pour faagaagal la. moom la ñuy du self défense. xaw voilà taxu koo dee. waaye assumé nga ko am nga li nga bëgg nit nag toog fii gis nga fii loo fi mën a def am ñu ko gàkkal fii la fi RTS te ñun ñëpp xam nañ fi RTS jógee ni mu soree ci ñàkk moom suñ seen bopp ci mbir mi wala ñàkk yemale ñu invité benn homme politique député député boobu Macaire ba muy wax ci li président war a wax bu waree wax ca la bokk ñu jékki-jékki ñu bind ko comme ñoo ko woo woon suñ ko bindul woon sax nga ne waaw mais ñu bind comme ñoo ko woon ne ko ah débat bi ñu la doon woo après vingt heures kat vingt président day wax soo mënee sax mën ngaa ñëw participer mu génne l'heure grave kooku mënoo koo tee wax mhm. faw ñu wax bàyyi leen ñu wax opposition bu dem jéye am nga dem yegg ca dëj bu tooy ba nit ñi di nangam nga ne leen njiitu réew mi seen baay faalewu leen maanaam seen kilifa faalewu leen gatsa gatsa la tab même pas sept heures de temps kooku ñëw ñëw jaale si muy président de la république kooku mënoo koo tee wax. mais loolu est-ce que mën nañ jàpp ne bi kese la tamit. waaw ak ku mën a wax. xam nga da xam nga waxal naa la waxal naa la léegi yonent bi sallallahu alayhi wa bu taxaw dem di war a aji ak li mu waxoon julli di ne loolu lay def. données yi changé. nañ ko bëggoon a def faagaagal ay adversaire am seen pexe yañ lay mu lal mu gis ne pexe mi moo gën a jub mu teg ko bari nañu comprendre mais après comprendre nañ moo tax explication da ngay daal di gis ne dafa leer beneen bi li mu bind ci lettre bi. Mm-hmm. ensemble jàpp seenub dat te du seenub dat ndax bu datul njiitum réew mi taxawee. du seenu dat datum njiitum réew mi la. ndax loolu la ñu def après. voilà léegi yow bi ñu jàppee. soo leen bàyyi woon ñu am temps bu boobaam ñu def liñ la bëgg a def gàkkal li ngay def te amoo temps Sénégal dañu nekk tout est urgent mm-hmm. mu dal di jël date boo xam ne su leen ko joxee problème lay nekk ci ñoom bala nga ne naam am nefa ñoom duñ fa mën a yegg stratégie bii la te leeral na ko. yaakaar naa loolu ku ne. mën na ko non non président président bu tegut. stratégie ci loo xam ne xam nga. non non xam nga xam nga man moom la douze assemblée dina moom laa lay wax xam nga yow mii xamoon nga ne président da koy tas keneen ak keneen xamoon na parce que loolu la ñu tàmm non non non non non non Fatou Fatou Fatou question bi ñuy posé mooy est ce que du ñoom député yi xamoon nañ ni le douze président da koy tas moo tax ñoom ñu jàpp le onze moo ah, voilà looloo tax sax ko jàppee ñoom ñu wan ko ne ñoom mën nañoo jàpp parce que comme huit jours la mën nañ koo def trois jours gis nga loolu mënoo koo bañal benn homme politique taxul benn kàddoom dañ parce que dafa ne jàpp naa datu le treize maanaam li ngeen bëgg amal yéen nii. yéen le onze ngeen jàpp li ngeen bëgg amal. léegi dootul am boobu jàpp naa ko le. treize te xam le treize. voilà maanaam date bi date bi ci boppam arme ba ñu teg. Uh-huh. la ne fi ngeen ko bëgg a teg. léegi te teggi naa ko fii. Mm. teg naa ko fële. te Euh, nag te xam ne du am. te xam na xam ne du am. moom laa lay wax moom laa lay wax te xam ne du am. que Ousmane Sonko moom léegi nag def point de presse. léegi léegi léegi xam nga problème bul ko ramené bu ko ramené bu président taxawee bul lijjanteeti premier ministre. non xaaral tuuti xaaral xaaral xaaral xaaral tuuti. léegi mu ñëw wax. voilà état amul loolu. ma ne léegi léegi léegi man fi may waxee. Euh, bu booy wax nag danaa la ruwee ba nga ba nga xam. xam ne. rouge et non non si léegi kii nee na problème mu xaalis léegi kii nee na problème mu xaalis nee na problème mu xaalis nee na maa ngi koy waxal ne ko vingt 27 milliards yi ñu siin jox te laajuñu fi dara luñ ciy def kenn prévoir ko woon baraka la. <laughs> vraiment comprendre ba bu fekkee ne problème mu xaalis nga wax ne daf doon daf doon posé xam nga man man argument laay teg yow may naa la lii léegi dama lay laaj lan moo tax comprendre ma ah, no ah déet déet déet ah, ah déet ah, moom dafa jàpp ne non non may ma tuuti ma yeggal comme moom euh, léegi léegi day laaj xaalis man damaa bokk ci ñi nga xam ne dañu indi solution dama ne ko. nañ jël 27 milliards yi. 27 milliards yi nga xam ne jékki-jékki na ci lu nekkul dara président dem rek ëndaale mbaquus teg. Hmm. déjà foofu la beneen bi mooy budget bi ñu tegoon pour deuxième tour. sa léegi ci euh, say wax nee nga euh, fii lépp a urgent ci jamono jii. réew mi dafa toll fi nga xamante ne ni euh, peut-être am na lu ci bëri loo xamante ne ni war nañu dox jëm ci. waa waaw ngeen ne 27 milliards yi nga xam ne jëlee na ko peut-être luñ ko woon fenn. Mm-hmm. ñu def ko ci lii. Mm-hmm. léegi yeneen urgence yi waa yeneen urgence yi damaa yaakaar ne réew dara gënu koo urgent. am ensemble mm-hmm. bu normal. xam nga réew mënul ñàkk président. mais mënul ñàkk. ensemble bu sérieux bu mm-hmm. normal boo xam ne askan wi ñoo ko fi teg mm-hmm. bu askan wi wóoloo nag jàpp ne opposition bi la war a jox parce que lii leen président wax da na a naqari mm-hmm. maanaam droit la ci opposition bi ñoom ñu ñëw di teg diaboliser wax ci wala keneen ku jàpp ne maanaam président nekkul ci dëgg yow bu la neexee nga wax ko on est en démocratie mais li président def am na lu ko ko tax a def bu xullee woon toog bañee ñëw mën koo gàllankoor mën a gàkkal loolu mooy gën a bon fu kilifa da ngay am foo yegg foo xam ne liy tax kër gi dox loolu ngay def paali neex nit ñi seeni bang-bang ak yi nga xam ne moom la ñuy wax en tout cas mënuma ci gis koo xam ne kàddoom dafa tuxu jàpp datul le 13 parce que dafa am lu war a xew dat boo xam ne fixé nañ koo pare day am yow nga ne li ngeen bëgg a def léegi dat bii laa ko jàpp tout en sachant que balañ caa yegg nga far tas ko dafa am jubluwaay bi te nit ñi xam nañu li tax ku ko expliquer sénégalais yi ñu xam li tax c'est très normal nag parce que boo nekkoon ci dëkk ñu la daan fees ndax fu ñuy feese duñ fa jàmbat góom buñ demee ba toll ci nga xam ne problème nekkatul nit ñi ne ciiwee ñibbi seen kër wala nit ñi ne ciiwee am euh, république bu normal wala nàngam bu ñu yeggee fii c'est très normal lii dem nekk te lii sas la ci kenn ku ci nekk mais nit suñu tegee dara la mu def ma wax ko muy introduction introduire na problème yi nga xam ne moom la ñu sësale ñoom bu fekkoon ne defuñu lii ñoom ba pare mm-hmm. président ñëw di ko tas bu boobaa dama naan président dañoo yeb man bokkoon naa ci ñi doon wax naan su ñuy yeux france nekk ay vrai député man damay ñaan mu ñu yegg ba jusqu'à terme même cinq ans yi di jaajëfal nag ay dara ñu def lu kenn defut ci ñoom nee na tey ginnaaw ensemble ginnaaw bu mu santee euh, ndeyam ak baayam ya ca barsàq sant wa Malick Gakou ak waa Yewwi ñoom Ousmane Sonko ak loolu bis ni tey salaire bi nga xam ne moom la waroon a am ci bi nga xam ne nee na daal toog muy dox moom fas yéene ko nee na renoncé wu na ci salaire bi nga xam ne moom la waroon a am te loolu it c'est à saluer parce que tamit député bi bu mois bi ak maanaam deux mois yi nga xam ne maanaam tey maanaam yi mu war a jot après ma ne la du ko jël loolu xaj na ci waa Géejawaay yi. waa mais waa mais. waa mais waa mais waa Géejawaay ci Sénégal lañ bokk. mais Fallou Sarr dina daal aussi parce que. waaw. d'accord léegi Sarr nga nga tënkale ko. pour pour vraiment li mu fi wax parce que ci wër-wër loo kese la nekk quoi bu ñuy wax kenn comprendre la la Sarr léegi daf ci am loo xamante ne yow da nga da nga ko ci comprendre ci li mu wax da nga koy. waaw man non man ma question man euh, damay wax sama jàngat dans cette histoire euh, parce d' abord euh, premier responsable bi dama jàpp ne c' est le président Macky Sall parce que moo ñu dugal tey ci impasse bi moo fi toogoon nekk ci mauvaise humeur dañ koy xaw ma toog supprimer poste premier ministre bi mu ko supprimer dafa yóbbu ci yenn ci ay dispositifs yenn ci article mu di 97 bi mu demee moo koy indiwaat aussi xaw ñàkk xam la xaw ma tayef tayef teef la xaw ma également c'est des calculs politiques